ci fan yi ñu weesu boo yegsiwaan Sandaga na mu daan mel ak tey wute na lool ambiance bu lewet lañu fa fekk ay cantines yu bari ñu daal di koy tëj lu waral lu ni mel. li indi grève bi yëpp mooy ñàkk worma bi bi bi bi état Sénégal. am ak commerçant yi. tracas tracasserie douanière la te loolu moo ñoom ne ñoom neewoon nañu ñoom neewoon nañu ni teg nañ lépp suuf pour waxtaan mais dañoo jëlal dañoo demaat ba ci biir. Jelat ay décision yoo xamante ni ñu léegi nit ñi waxtaan ak ñom ñi ñi ñi ñu toogaloon ñi ñu toogaloon ba wax lolu bo jelat décision da ngay togaat ak ñom waxtaan ak ñom mais da ngay jël ben décision rek ñew ne alors immédiatement da fay am parce que parce que tu es chef lolu nak c'est pas normal. bo commencé pompier ba ni ngay ñëw fi ak marché yi nga xam ño fi nek yépp civil nañ grève bi nga xam ñun mom lañ wax ne mom lañuy def te ñom ñëpp. dañ koo def en unanimité bu fekkee ne yaa ngi dugg di xool bu la neexee keneen jël caméra xool loolu dañ ko suivre ndax duwaan bi jël na charge bu mag a mag a mag teg ko ci kaw commerçant yi te loolu diis na diisaay boo xamante ni attanuñu ko moo tax suñu caabi mooy suñu ngànnaay ñu jël ko tëj ko ndax mënuñoo nangu nga daan indi conteneur di ko déclaré forfaitaire ñii di indi divers ñii di indi kii kenn ku nekk ak sa tarif tey ñu xëy rek di daal dina yooyu yëpp amatul dañuy indi la benn affaire boo xamante ne nii dañ koy teg ci kaw maanaam boo ko jëlee tey par exemple bu doon nee 3 millions lañ la fayee ko douane léegi yóbbu nañ ko ba 9 millions kon yokk nañ ko 200 pour cent loolu nag commerçant yi gisatuñ ci seen bopp te koo xamante ne nii saa yu wayaasee bu ñëwee jaay du def affaire nga yokkalaat ko loolu yëpp moom moo tax mënuñu ko moo tax ñu ne léegi dañoo fas yéene banque suñu loxo te banque loxo bi nag tojuñu yàquñu defuñu dara suñuy caabi ñoo ko moom waaye nag dañ koy fermer quoi. dañoo laal intérêt commerçant yi lool di liggéey di defar réew di defar réew lii dañoo gox bëgg a xam ñu xam ne président xam ne euh, commerçant mooy mooy Sénégal ñu jox leen seen cër te leen déglu su ko defee réew mi dem kanam. xëy si nañu waaye taxul ñu liggéey jaaykat yi booloo ci kuréel gi ñu duppee ACIS maanaam genn mbooloo gu fi taxawal commerçant yi ak industriel yi ci biir réew mi seen yoxo ñu daal di koy bank ngir xeex doxalin bu bees bu douanier yi daal di andi ci walum jënd ak jaay ci buntu centre commercial El Malik Omar Cissé ak i ñoñam di xamle ni. li taxone ñu don grève euh, bokku na ci douane bi nga xamné dafa yokku bokku na ci li taxone ñu don grève marché yi nga xamné dañ leen di jox ay délai ñu gis né bu délai bi passé rek ñu gis marché yi di tak di lakk bokku na ci li taxone ñu don grève aussi tamit euh, marché Sandaga bi nga xamné dañ leen joxone euh, délai pour jox leen sen plan. Euh, mooy association and art Sandega. yooyu yëpp lañ bolé mu nek ay mbir yo xamné dafa naqar commerçant yi ak li nga ci commerce bi gis nga ko muy ay la yu commerçant yi di douane bi nak bo euh, douane bu yoké ci population bi la jëm bagage yi bu yoké dañ koy ci prix tay dem ba ci jënd ci population sénégalaise ñu comprendre suñu message suñu message mooy pour ñoom ñu comprendre que liñ ñuy xeex nii ñoom seen xeex la c'est tout juste loolu léegi nag sant ñu kenn mu yàq sant ñu kenn mu taal sant ñu kenn mu saboté forcé wuñ kenn aussi mu tëj message la ñuy envoyé ku ci sentir sa bopp nga ñëw bokk ak ñun message bi ku ci sentir sa bopp tamit nga seet li la sa xel dox nga def ko ça c'est une illustration que l'ensemble ou bien la plus grande partie des Sénégalais répondre nañ ci message bi Aziz doon woote ñi ngi ñaan ñi ngi ñaan ñi ngi ñaan ñu continuer ci liggéey bi ñu continuer vraiment ci jàppalante bi ci nu ñu trouver ay solution pour le pour le commerce au Sénégal. kuréel gii di UNACOIS nag nekk fi ngir taxaw ci lépp luy jëmale kanam commerçant yi ñii di ndeyu mbill yi di yëgle ni gisuñu benn yoon seen bopp ci liggéey bi ñuy jëmale ci ñoom Mouhamadou Habib Diaw kenn la ci jaaykat yi le UNACOIS moom bu fekkee ñun lay taxaw gis ngeen bu dee section Sandaga mi ngi dox gisuñu ko ak yeneen marché ñoom li ñu wax ñoom la engagé waa UNACOIS waxuñu ak commerçant yi UNACOIS seen déclaration bi ku ko dégg tey xam ne lu ñu wax nekkul loo xamante ni luy arrangé commerçant bi la xëy na ñoom kay luy arrangé ñoom seen i bopp la c'est que man ni ñu mën a jàppee UNACOIS jamono bii ña fa nekk mooy ay commerçant yu retraité ñoo fa nekk loolu lañ ko mën a jàppee munuñ ne kenn boutique moo nekk nii dem leen ci waa UNACOIS ñu wax leen fu ñuy jaay ak seen boutique ay commerçants yu retraité Ben benn groupe boo xamante nii la buy dajaloo rek di def seen affaire ba koo ci kaw commerçant yi léegi désormais am na leneen lu tudd assise moom moo taxaw pour jàppale commerçant yi ndax ñi ci nekk ci bobba ba ci cet bi ñëpp ay commerçant en activité lañ ñii ñi ngi importer ñii ñi ngi yor seen place ci ji. ku jàpp ne ku jàpp ne nii nga mën a défendre commerçant yi nga défendre ni nga ko jàppee mais ñun niñ jàppee mooy taxaw sur le terrain commerçant yi wan li ñuy représenté.